loolu day am na nañu ci mbett moo xam ni ak xéewal yoo xam ni mënuñ ko woon a feneen fu dul fii ba tax na maa ngi woo bokki jullit yëpp ci lii ndax njariñ la ndax xéewal la yéene naa ko ñëpp maa ngi koy yéene bokki burit yi sunu bokki taalibe yi rawatina nag cantaako